yàgg na waaw fay ñu defar ko Pape Mor Lo. ci Pape Mor Lo. nan laa moom ban problème. waaye damaa demandé woon gars yi bañ. daal vidéo yi ma dugal ñu am solo jàpp tuuti rek loolu lañ ma bañee woon. depuis ay mois may xaar. ah fay ba cinq mille ah loolu rek mooy liggéeyam ah dafa taxaw moo ci ay moo ci mën dama ko defal léegi trois jours quatre jours waaw day jaay si moo defalee trois jours quatre jours mu ñëw ndax am naa loolu xam naa moom gisante wuñu ba léegi su ma toog laaj toog waaw bësal fii suuf am nag am fulla ak fayda fa lañ nekk di nuyu war waay rax yëpp di nuyu làmbaloog yëpp di nuyu képp ku nekk ci làmb di ñaanal yàlla làmb yàlla na jëm ci kanam waaw ñoo am ay stade yu bëree bëri combat yi ñëw taxaw nag mm. waaw instant yi ne pare naa mm. ci lépp booba léegi lu lu promoteurs yi wax ci Moussa Ndoye la wala ci promoteurs yi amateurs yi moom ñu ngi dénoncé sa combat déclaré nañ ko bu yàgg. waaw am de wax nañ ko bu yàgg man tam maa ngi toog di leen xaar pare naa. Mhm. promoteur nañ seet si am problème pare naa léegi. Mhm. waaw wax naa fi laa ko waxee. mais mais lan lan moo waral yokk état bi nii ci man ci li ma gis man. si da nga xaw a jël maas si tuuti ci man. bu ma juumul quatre mois ngi nga xam ne dimanche kese laay lan moo waral loolu te amoo combat. wallaahi al azim dimanche kese laay noppalu. parce que léeg-léeg daan damay nangu damay nangu tuuti nii combat daan na ma bett. Mm-hmm. mooy léeg-léeg xam nga am na fooy tolloo fa tolloo da ngay du da ngay dañuy yor suñuy métier. Mm-hmm. dañuy bàyyi entraînement yi dem liggéey. nekk si liggéey bi nekk ci liggéey ñu xëy xëy rek balaa ngay pare bay jot rythme combat bi day wàcc. Mm-hmm. day jege. di nga nekk si état nag. mais état bi nga bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg du la nekk. san yi foog nga os. te wax dëgg yàlla ñeenti weer yi yëpp laa la wax. bi koor gi desee ñaar weer xaw ma ñaari weer weer. lañ commencé biir koor gi dañ ko doon entraîné comme si dañu am combat wallahi al azim koor gi dem naa ba si cent dix huit kilos te dama doon wóor mais loolu sant yàlla bu ñu jógee si loolu ba léegi amul benn jour bu ñu toog mm-hmm. duñu entraîné am na solo sa biir combat yi ban combat nga ci gën a sentir état de forme xam nga amateur des fois ñu gis la ci benn combat boo xamante bi nii dañuy jàpp forme boobu noonu. Mm-hmm. waaw dégg naa léeg-léeg léeg-léeg amateur sax ni combat ma mu daan kii euh, Alioune Seye ci la gën a nekk ci état. combat boobu 2013 la woon le 27 février 2013. waaw combat boobu nee nañ dama nekkoon ci état d' na mais man sama combat bi nga xam ne dama koy entraîné di entraîné ba gars na man da nga feebar. la mool dal muy sama combat Lac Rose bi ñu ñëwee dama maa ngi ci hôpital. wa Rose waaw parce que combat boobu dama ko doon liggéey à ma manière. lan moo waral lan loolu su ma gars yi di entraîné suñu entraîné ba pare ba ñibbi ma jógaat ci guddi gi dem entraîné ji. dem doole <laughs> ñu ma ndax lan man leen Lac Rose dañ ñu dafa dafa dafa sañ day day minimiser mbër moom bu la gisee li mu bëgg ngay def man leen su boobaa du ko def sama rakk ji Pam Doy maa ngi koy <laughs> wax na ma ko si biir wax nee na ma Pam nee na ma Moussa ma ne ko naa mun ma lag mooy mooy mooy doxal waaw loolu bokk na si li ma gën a li ma gën a motiver uh-huh. moo tax combat bi ñu nee suba la la wax maa ngi hôpital bi. Hmm. loolu garaaw na de ba pare bëri militaire yi. ne ma dama lay bindal certificat médical doo bëri ma ko bis boo ko defee. boo ko defee <laughs> non ba ma lay bàyyi àdduna ak alaxira mu ne ma amul problème ana mu fa la mujje ma ñëw indi teg lu leer mm-hmm. waaw lu leer mm-hmm. benn par benn parce que Lac Rose booy bëri moom da nga koy lii teg teg gi mm-hmm. dafa nekk mbër moom mbër mu naqaree bëri la Lac Rose du ñeexu ñebe de <laughs> booy koy laaj nii ñeexu ñebe lu leer laa la wax loolu <laughs> jàmbaar digg koy daan wallaahi azim macha allah am na solo dimanche passé ñëwoon nga lamb ji lan moo tax nga ñëw gëj a bëree nam lamb wala gunge say rakk wala lan waaw boobu sama rakk yi laa bëgg am komba waaw wës. caat ñoom bëgg ñu am combat parce que ñoom ñoo tax man àndoon ak ñoom nii lañ kaala ñu dem ngeen uti komba mm. waaw moom tamit ñoom tamit maa ngi leen wax nii ku bëgg seen combat man boo jaaree sama mën naa sotti. macha allah toll nañ foofu. macha allah ku bëgg sama komba boo woon wës mii nga wax ko lu ja lu lu palpable. Mm. wës du la dama lay wax dina la xaaral ma dawal sama moto nga jël si xaalis bi. loolu la yàlla dogal. macha allah ñun fay ay frère lañ. ñooy yëkkateendoo yëkkateendoo dóorandoo amuñu lenn luñ ciy jiixi jax waaw làmb nag pare naa. pare nga pare naa. pour l'instant pare nga yan adversaire adversaire yi doon wax yëpp nan nañ Moussa Ndoye Moussa Ndoye <laughs> nañ ñëw. booy yeeg ñi nga tolloo fi nekk daan wax Moussa rek. ah wax ji de bari woon na. na ñëw mais Moussa Ndoye Moussa Ndoye Moussa Ndoye na rek nga naan Moussa Ndoye ku si ñëw ku si pare da nga ñëw ah <laughs> ay diggante yàlla. barke yu ma barke Fapes. <laughs> co. mais lu ma jaa parce que wax ji dafa bari woon nga toog sa roq tey man ma ah. ñëw gis état de forme bi. Ah. lan moo tax sa yaram tàng nii. non <laughs> boo si nekkee dafa neex. waaw waaw boo ko yëgee. mbër moo ko waxoon. <laughs> waaw ma seen. moo ko waxoon bee euh, maa ngi entraîné du du wax. waaw maa ngi entraîné jarul wax. Mm. mais wallaahi al azim ñoom ñëpp laa wax ku si pare pare na. Mm. ñu fay ma rek. ma dongali stade su ma fa dongaluwaatee bu duggaat leneen la ñuy wax <laughs> ci biir dongali boobu dafa am benn xale boo xamante bi nii 4 avril la fo mu fa diggante digganteem ak Modou Anta waaw jëli naa ko waaw nee na pare waxoon nga doo bëree moom dem nga ba ci yàgg ne nañ ma fay kase bi ma bëgg nee nag li ngay laaj defa cher trop pare na pour affronter yow muy Diène Diouf Kaïré moom dama koy dama koy dama koy recadrer tuuti rek parce que magam la ndax dama dégg mu ni mm. Moussa Ndoye nee na mm. nañ ma nañ ko fay la nga xam ne day seen dem Europe man su ma yóbbu sama waa kër Europe bi si kàcceem laa ko yóbbu Europe non non loolu waxu bu fekkee dafa am ku ko wax ne ko Moussa Ndoye ma wax loolu. kooku mu ngi koy nax man yooyu. mais jógewul ci yow. non mos man loolu dama ko déggee sax dama ko dama dama tiit ba ba ba jël ba jël vidéo bi garde ko. man maa ko jëlee woon. ci koor gi waaw waaw dama dama tiit ba jël vidéo ko parce que loolu erreur erreur yooyu du ay du détail man lu ma yóbbu sunu waa man sunu waa kër yaakaaruñu ci man de samay rakk yëpp ay liggéey soo mag yëpp ay liggéey sama yaay day man sama yaay moo yaakaar si incha allah te sama yaay du ba ma koy defal du boobu ñemewu maa bëri. Mm-hmm. ba mu koy defal ñemewu maa bëri. mais booy bi booy bi loo wax ci moom. pare naa pour moom. cey bis boobu. na xool da leen boole ci ci na bu ko neex. waaw date bu ko neex. waaw stade bu ko neex eh. ñu bëri. Moussa lii ngay wax garaaw na bu bëggee Iba Mar boobu na ñu tijjil Iba Mar nga xam ne. estade estade am waaw dañuy dox dugg si biir estade bi déglu ma ku mu a tëj Iba de am na fu mu jaarame estatam la de. léegi li ma la wax lii maa ko wax mu ngi may wax ma pour ay promoteurs yi bëgg ñu tëgg sama combat de baale ma tëbis ba pare. ok waaw. ba feetu mais est-ce que est-ce que di nga raisonnable koy wax de ah. est-ce waaw la xam nga mën ñu yaakaar dafa am da nga bëgg avance bi <laughs> gans nga ba tabaski bu tabaski passé. Hmm. nee na ko neex date bu ko neex ak démb ak Iba démb Diop fee mu dëgg. Iba ñu bëri. di nga raisonnable. bañ a raisonnable raisonnable naa si li ma wax ci sama xaalis rek li des li ma ñu war fay. Hmm. buñ ma ko buñ ma nga xam. li nga mujj a bëree dañ la ci dolli. dañ ci dolli lu bëri. waaw dañ ci li ma mujj a bëree dañ ciy dolli duñ ko wàññi day dolleeku. ndax lan dolleeku. kan la ci adversaire bi tax ñuy. waaw adversaire bi parce que man maa koy may sens moom ma may ma sens de. Hmm. ok mais du ma bëri. du ma bëri loolu jën kër li a bëree doo ko ci tagalee nga buñ ma tagalee ma bëri. kon promoteur yaa ngi lay dégg yaakaar naa ne combat boobu nekk na combat ah. boo xamante ah. ne. ku ko delloo. nee na gis na ku la mën a. delloo non kooku delloo njëg naa mais munu nekk ak Diène Kairé. ok Diène Kairé. waaw ah. bu ma jëlee avance bi. dafa am ñett ñaa xam dama leen di kenn ku ne un million sax dama leen ko war a may. kon sama xaalis day jël waaw waaw ñett ñaa xam ñetti mbër la nag rek de. mais tey bu ma la doon wax Diène est ce que xam nga Diène. non jéem a ko xam man mos jàmbaar mais non barke yàlla us laa xam ak booy yi laa xam man sama booy yi laa xam man jën jëwma li jën sax lii lay def ak lu def lii billaay wallaay wa taala bu ma duggatee esat dañ ni Moussa Ndoye mii ak Moussa Ndoye mëne bokkul xamu tax euh, waxuma la li topp sama ginnaaw waxuma la lii ñëw si man mais li ma war a indi esat li war lii yëm nit ñi boobaa damay ragal caméraman du ñeme ñëw ci mu kaay Moussa pour xool <laughs> wallahi al azim laa wax. lan moo la ci làmb yi paase ba tax nga wax li waaw parce que làmb bu fekkee ni làmb bu njëkk mbër daan daje mbër daan daje morom mbërëm daan neexal lamb waaw daan neexal lamb daw def 100 mètres ki def 100 mètres sottee ko soow bi te sama njaq ñu bëgg ma ko xañ ba kañ man làmb le toggatu ma njaq sottee ko ma soow daw su ma sottee ko soow ñu tëj ma man man laa sama làmb ji passé kaaf ci kaaf laa nekk quoi. aisé wu ma defuma samay 100 mètres daw ma li ma bëgg a daw samay sarax sax dañ koy dañ may minimiser. te man dama loolu dafa bokk si man sottee ko soow teg nga fii daw toj ba pare njuug yuuxu jël joow joow gars yi làmb ñëpp toj yéen mu ànd si loolu ngeen ma xamee mais làmb ji gisu leen ko ah loolu dafa neex. dinañ ci def ab jàngat waaye ba tey. du ma ne ci biir booy damay jàll. parce que Zarko mi ngi fi am na koo xamante ne bëree wén ngeen. dimanche 27 mil 2013. fan yi def na ay performance muy euh, booy bi dëkk Géejawaay Alioune Seye 2 Alioune Seye 2. nee na bëgg na revanche bi maa ko seeti kay. non man mayoo ma revanche de man revanche laay mais dama fi am la ma fi daanaka nooy may revanche man bëri ma daan yëpp may may ma ko revanche pour may ko revanche. pourtant Baye Fall bëgg na ko de. non pare ma ko sax pour may ko revanche. wax dëgg yàlla sama waay la mais pare ma pour may ko bala maa jàll ci ñi nga xamante ne ay adversaire potentiel ngeen. dafa am boy bu la doon laaj double moteur. non double moteur duñ bëri ku bañ ku bañ ku bañ pour ñu bañ fa àgg ku bañ Zarko doo jël double moteur. Eh, eh, li ma la dafa leer dama la Papa Sow ah? ñoom Papa Sow Siteu. waaw combat wax naa la ku ci daanu ku ci daanu pare na. ku ci daanu waaw mais mais Zarko lu tax nga bañ ko pourtant lambu réew la de. man mbër nee na nee na bi mu ñëwee fii xaw nga dafi jël mbapat boobu. yaa ngi ko Mouhamed laa la wax. barki Serigne Babacar ci télé yi. boobu maa ngi war a bëri ak Eumeu Sène junior mu des 3 jours. Eumeu Sène junior géejawaay. waaw bi ma koy daan sama combat mu la mu def trois jours mais beneen mbër musul dugg yaraax fii di teg ngemb fii di bëre arène ni dem naa fekk si mbapat man ak Moussa Ndoye mu ngemb ma ngemb ma génnee mbapat bi moom kay premier tour dama damay daw si table jox leen ma ko <laughs> doo moom kay boo daanee premier tour am doo daanaat de jox ma ko laay wax ñu jël ma la ma la ma ma tegal la mais mais mais nag lan moo tax ci cadre làmb lan moo tax nga bañ ko quoi lan lan lan. ci communication bi. wala parce que bokk na ci yéen te yéen a débuté woon waaw communication man man moo ma moo ma déranger man dama bëgg mbër mu man bëgguma tey non non non non mu danta tey su fekkee chaque jour ma naan mu danta mu danta ñaata at laa kañ laa ko daan ndax mos ko dégg si mu danta gaaro ndax 2011 ndax dégg mox ndax dégg mox si mu danta lu ñaaw mhm. du ma def mu man mënu ma di ànd ak nit tey di ànd ak yow suba ma bëgg suba suba suba ñu lu wax may wax ci lu baax ginnaaw suba ma bëgg ñëw waxaat ci yow ci lu bon.